internationale. C'est l'info internationale. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo. internet yi ñuy bàyyi xel ci seneinfo.net ak seneinfo international ñu leen di nuyu fa yéene defal tënku ba xibaar tey jeudi di 17 novembre 2022 ñu tàmbali kook xibaaru biir réew mi. député yu assemblée nationale bu Sénégal nag bésub tey bi tàmbali nañ lii di marathon budgétaire bi euh, ki nga xam ne nag moom mooy ministre des finances et du budget di Mamadou Moustapha Diop euh, mooy nag ki fa war a njëkk a teew ci jëwriñ yi euh, li nga xam ne nag moom mooy kon examen du projet de loi de finances deux mille vingt trois bi moom daal kon lañ fa war a waxtaanee ñu ne nag ci yooyu la waxtaan nag dinañ examiner li nga xam ne. moom mooy euh, recette yu Sénégal dette publique bi li nga xam ne moom mooy budget yu pouvoir public bi muy présidence de la république assemblée nationale au conseil des collectivité territoriale conseil économique sociale et environnemental cour suprême conseil constitutionnel cour des comptes ak primature Aminata Touré àdduna jëmaleeti ci li nga xam ne moom mooy euh, mbirum euh, troisième mandat moom nag nee na njiitu réew mi daal da caa war a wax uh, lu leer te nee na ñi nga xam ne ñoom ñooy daal médiateurs yi nañ ci dox ay tànk ngir daal uh, ñu mën a uh, éviter kon ab jéye am ci boobule mbir moom nag démb gannaaw bi nga xam ne sax moo nekkoon invité bu Pape nga Ndiaye ci émission Faram Facce nee na daal 31 décembre bi ñu dëgmal mi ngi xaar Macky Sall ci discours am mu wax sénégalais yi ne moom du daal amal ab troisième candidature. mu ne it loolu dina tax ba daal euh, coow li dina wàññeeku te it euh, loolu dina jur jàmm ci réew mi mu ne bu ko defee nag ñu wéyal li nga xam ne moom mooy démocratie sénégalais yi wote ku leen neex. capitaine Seydina Oumar Touré nga xam ne dañ gannaaw bi ñu ko dàqee gendarmerie nag rajo ko moom dafa jàppoon ne daal loolu ab jaay doole la ba tax mu déposé woon euh, ab plainte fële ca cour suprême boobu ba léegi nag muy xaarandi wante nag bu ñu sukkandikoo suñu naataango yu libération. ñu ne boobale plainte nag kon dinañ ko examiner ki nga xam ne moom mooy chambre administrative kon bu cour suprême dina ko examiner le vingt quatre novembre bii ñu dëgmal bu loolu weesoo it dinañ amal ab euh, procès wala book audience audience boobu nga xam ne kon ci la ñu war a examiner euh, boobule plainte dinañ ko amal euh, dix heures bu jotee kon ci béss boobu le vingt quatre novembre bu ñu sukkandikoo suñu naataango yu libération xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy euh, colonel Ibrahim Traoré bi nga xam ne fi mu nekk nii nag euh, mooy jiite Burkina Faso di président de transition ba gannaaw bi mu fa amalee ab coup d'état ñu ne moom nag euh, nee na daal lii di salaire président kon du ko laal moom daal nee na dina yem ci li nga xam ne moom mooy salaire kon colonel am colonel wala boog capitaine ba mu doon salaire boobu daal nee na ca yem kon daal yooyu le koppar. du ko jël wante itam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca nguur ga euh, muy jëwriñ ya ñoom it euh, lu toll ci cinquante pour cent dinañ ko wàññi ci seen ko salaire ngir ñu jagleel ko euh, ñi nga xam ne kon daal crise sécuritaire ba fa am moo tax ñu doon ay dawlaaxu xibaaru bitim réew it benn ponk lay doon muy guerre bi am diggante Russie ak Ukraine ñu ne nag bés bu tey bii daal waa Ukraine dañoo xëyti dóor wala bokk waa Russie kon dañoo defati ay bombardement yoo xam ne kon euh, laal na ay régions yu bëri foofule ca Ukraine bu ñu sukkandikoo nag ci autorité ukrainienne yi nga xam ne euh, France 24 euh, moo leen kon rapporté moo indi yooyu le xibaar ñu ne nag fa ñuy wax Dnipro am na ñaari site yoo xam ne laal nañ leen am nit koo xam ne am na fa ay gaañu gaañu wante itam ca Kiev am na ñaari missile lu ñu waaye missile de croisière yoo xam ne sax armée bu Ukraine dañ leen euh, euh, dóor ñu daanu kon yooyu jotu ñu def ay euh, dégâts mu ne it fa ñuy wax sa am na ay infrastructure yoo xam ne kon ay bâtiment yoo xam ne kon laal nañ leen fa sukkandikoo ba léegi suñu naataango yu France 24. xibaar sport lañ koy jeexale démb nag équipe nationale bu Sénégal bu handball ci jigéen yi ñoom ñoo dóor waa Égypte. 21 ci 19 euh, gannaaw bi nga xam ne ñu ngi doon jongante ak ñoom quart de finale bu coupe d'Afrique handball bi nga xam ne Sénégal moo koy dalal fële ca Dakar euh, Arena euh, gannaaw ndam loolu nag day tax ba suñu gaynde yi kon jigéen ñi dañuy qualifié ci li nga xam ne moom mooy demi-finale bu CAN handball 2022 wante it qualifié nañ li nga xam ne it moom mooy mondial bis mondial kon Euh, mondial handball bi nga xam ne kon moom la ñu dëgmal loolu la ñuy ñëw tey xibaaram seen teew loolu la ñu jox dañuy